fekk frère yi rekk la amul fenn alhamdulillah wa sallallahu ala muhammad mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ca na mu gën a ware julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca na mu gën a selle ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu ci nuyub lislaam te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàmm ak mucc ak yërmande suñu borom yàlla na wàcc ci yéen ginnaaw loolu ñu delsiwaat ci seen émission seen waxtaanu euh, njàngalem noddu ak seen mbokk Modou Moustapha Ndiaye ci seen deuxième partie ànd koog Tawfekh Production gaaw leen abonné ngir ngeen mun di jot vidéo yi di ci mën a jële njariñ euh, buñ la laajee lan mooy nodd euh, nanga tontu ne nodd jaamu yàlla gu màgg la goo xam ne jullit bu nekk war na koo xàmmee nodd day loo xam ne jullit bu ne war na koo xàmmee loolu moo tax ñu war koy leeral moo tax ñu bëgg koo leeral li maarifatil ilm ngir xam-xam ndax dafa am solo hmm? kon buñ la laajee lan mooy nodd na nga tontu ne nodd mooy xamle mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mbir mi nga xam ne mooy xamle tàbbi waxtu julli mooy xamle tàbbi waxtu julli wala nga ne mooy woote tàbbi waxtu julli waaye gën julli julli farata ndax noddu kenn du ko def ci geneen julli gudul julli farata ci julli farata rek lañ koy lañ koy defe kañ lañ koy defee mooy su fekkee ne waxtu wa tàbbi na ngir ñëpp rek mën a xam ne waxtu julli jot na kon nodd boo ko déggee rek xamal ne waxtu julli jot na waxtu julli tàbbi na julli farata ndax waxtu julli farata day waxtu woo xam ne su jotee rek dara baaxatul lu dul julli waxtu julli farata julli suba tàkkusaan timis gée julli juróom yooyu noonu suba tisbaar tàkkusaan timis gée julli yooyu julli bu ci nekk rek bu ci nekk rek dafa am waxtu waxtu woo su jotee nag su boobaa dara baaxatu lu dul julli kon il faut que ñu siñaale ko il faut que mu am loo xam ne mooy xam ne ci la xamee ne waxtu wi jot na loolu mooy nodd kon soo ko déggee na xam ne waxtu julli lan lay wax ne moo jot ngir nga war a bàyyi lépp loo doon def te dem julli kon bu la laajee lan mooy nodd na nga teg na nga tontu ne nodd mooy yëgle tàbbi waxtu julli wala nga ne mooy woote tàbbi waxtu julli ci ay baat yu ñu ko jagleel nga xam ne bu ko dégg xam ne woote la ngir julli maanaam kay koo kay woote kay noddu daa bëgg ku ko ku ko wuy si kon loolu nañ ci bàyyi xel noddu mooy xamle tàbbiku waxtu julli julli farata waaw su ko defee nan ko uh, bàyyi xel kon mbokk yi gaaw leen abonné ci euh, Tawfekh Production su ko defee ngeen mën di jot euh, waxtaan yi euh, ni nga xam ni noonu la ware ngir ngeen mun cee jëlee njariñ ci xam noddu ak niñ koy defee hmm, ci ay melokaan yu bari moo xam ci wàllu limu baat yi la moo xam ci wàllu euh, mélodie yi nga xam ne nii boroom xam-xam yi xalaat nañu ci xalaat nañ ko ci ak lu jëm ci baat yi ni ñu koy ni ñu koy waxee ndax baat yi am na ci yoo xam ne ni ñu koy bindee ah bokk ak ni ñu koy ni ñu koy waxee dafa am beneen fànn xam-xam bu ci bu ci laxasu hmm, muy fànn xam-xam tajwid hmm, ah ak yin ci war a seetluwaale yooyu yëpp mi ngi ci kanam